ok merci Nourou pour kii bi pour euh, développement bi euh, bon man sama question mooy lan mooy euh, différence bi entre je sais pas nœud dañ koy télécharger wala dañ koy développer je sais pas lan mooy différence bi aussi entre avoir un nœud e ou bien être détenteur d'un portefeuille crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a une différence? Ok. Si, si, je vois. En fait, nous, ben logiciel est téléchargé avec ce, ce PC. Il y a plusieurs moyens de le télécharger. Mais la meilleure solution, c'est le build from source. Mais ben logiciel est téléchargé ce, ce, ce PC. Après, nga lance logiciel bi. qui su que lu ñu ben full node le logiciel boobu day dem télécharger toutes les transactions qu'il y a eu sur la blockchain entre guillemets Bitcoin depuis sa création en 2009 te loolu des semaines des jours des semaines voire un mois et quelques ou deux mois ce ce ko fait ça permet à Niki de vérifier les ay transactions ça remonte à 2011 2012 2013 mais dans le logiciel y a développeurs développé le mais il faut que xaw tout direct pour xam télécharger le logiciel bob non nan lañ koy paramétrer nan lañ koy lancer lol tamit c'est peut-être un frein à utilisation né e la moy différence entre am ben portefeuille virtuel à ben ne gis nga portefeuille virtuel yu bari yi ngay gis tay ni nga xamni nit yi mën nañ len télécharger ci App Store bi wala Play Store bi ñooñu ñëpp ils se basent sur un ne. ci gannaaw mais ñoom nous basé sur le niveau full node il se base la plupart du temps sur le niveau ben SPV euh, simple payment verification le tout madame ay nœud light la yoo xamni ne ils ne sont là que so buggee yónnee ñu activer un bop xol kan nga ko bëgg ñu yónnee ko recevoir ñu activer len ñom un bop ñu recevoir après ñu fayat donc pour de len gis dal xam len ni amna ben benn nœud bu nekk ci gannaaw day melni rek nga utiliser ben application classique il faut nga xamni amna ben base de données bu nek alors que là bon base de données bi mom moy bitcoin bi quoi xaw répondre à cette question. si si si si répondre macha La léegi euh, utilité vu que bon am une possibilité am euh, comme par exemple benn benn portefeuille sur euh, Binance ou bien la token exchange ou bien je sais pas La mooy avantage à part euh, le fait que c'est da la éviter centralisation des données quoi y a yenn expertise y yenn connaissance yi nag ngay exploiter ok euh, le fait que nit ki bàyyi ay crypto-monnaie ci l'exchange exchange a eu, ça crée beaucoup de choses déjà exchange pour le monde fa du compte da joxe information sur yow donc da nga sa pièce d'identité fan de dëkk ak donc gars ñom su fekkee par exemple yow da ngay am say bitcoin ci ben exchange ki nga koy yónnee am nek ci ben exchange kooku tamit ki koy yone nek ci ben exchange exchange bi il sera plus puissant que banque bi parce que dina xam ku si nek ci yéen nan ngay dépenser sa xaliss donc mën nañu def ay statistiques ñu def len profiler et cetera topp leen gis nañ fi tamit ay nit yo xam dañuy dem dugg ci biir exchange yoy non, sàcc crypto monnaie wu nit yi. Donc là aussi, il faut faire très attention. Exchange, à part centralisation comme ni nga dit, quand fa bitcoin ou ce sat, en fait moi, au final parce que nous, avons la jox clé privée entre guillemets ne le garder comme bu mais clé privée non c'est pas c'est pas la vraie clé privée parce que exchange la plupart lu gens def acheté des acheter wallet maanaam hierarchical deterministic wallet ñom dañuy am ñom ci seen bop dañuy détenir ben clé privée mère ben clé privée mère bo xam mom moy générer ay clé privée fi léegi mom lañuy jox nit mais au final ñom ci seen bop ci décide de récupérer wala des informations wala de récupérer des bitcoins pour def ci leneen ak leneen yow do ci mën après ils n'ont pas intérêt à le faire parce que sinon day yak seen business mais ils ont le pouvoir de le faire to lol gisoon nañ ko ak Mongox en 2014 donc man li may conseil nit chaque fois moi, même si il est difficile d'avoir accès à l'information même si il est techniquement un peu délicat installer ce bob euh, la personne ne perd rien à essayer quoi xam naa ni daal loolu moo tane bàyyi crypto-monnaie exchange quoi. ok merci nous. donc euh, bon. li ngay wax ni am na ay idées yuy yuy flotté bon disons ku am euh, ambition créer benn portefeuille dison portefeuille sénégalais quoi pour euh, pour démarrer tu obliger de télécharger un nœud et de le paramétrer comme par exemple bu bu fekkoon am na objectif boobu je suis obligé de télécharger un nœud de le paramétrer après ma xool euh, comme par exemple sama contact yi ku si bëgg Euh, am portefeuille ma ne la kay kay ma kay créé portefeuille bi si sama si sama plateforme c'est c'est possible. c'est exactement ça manam instant bi ni nit su amone projet créer ben portefeuille made in Sénégal hm? il sera obligé déjà mu am ben full note donc pour am ben full note mooy nga installer ben soit si sa PC wala si sa ben serveur dédié mais en tout cas daal il faut nga am ko parce que yow nga am benn portefeuille sa téléphone nga bëgg a yónnee di recevoir il faut nga am moyen nga vérifier si blockchain bi entre guillemets fan la yónnee boobu toll te loolu soo amul sa bopp benn full node tu es obligé de faire confiance à keneen te comme li ma leen ko répété li ma leen ko waxee au tout début ñu ngi si benn mono boo xam ne tu es pas obligé de faire confiance tu ne dois même faire confiance à personne da ngay vérifier donc niko am projet yoy un wala sax projet wu exchange hein, au Sénégal ak tu es obligé de am ben wala plusieurs full node yo xamni mom moy nek entre guillemets sa backend quoi mom moy nek mom service de base de données en tout cas pour tout ce qui s'agit euh, des transactions mom moy générer aussi portefeuille manam nga am sa projet portefeuille euh, modou su télécharger application bi si téléphone am dang ko koy générer ben adresse bu bokul ak faatu su télécharger application bi te loolu léegi tamit nga am benn full note moom moo la koy permettre. ok léegi pour euh, sécurité bi niñ koy gérer. ah pour sécurité bi c'est comme nga am benn site web wala appli web wala application mobile c'est il faut faire appel à un spécialiste tout simplement parce que question de sécurité yi moom warul nekk benn affaire à côté foo nga wut kenn koo xam ne daf ko xam réellement donc kenn koo xam ne xam na sécurité wu bitcoin wala xam sécurité wu blockchain yi spécialisé parce que faille de sécurité yi ngay application mobile yi bokkul ak faille de sécurité yi ngay application décentralisée yi faille de sécurité yi ngay gis ci nœud bitcoin yi bokkul ak faille de sécurité yi ngay gis application web classique donc man je dirais faut faire appel à un spécialiste tout simplement. ok Nourou merci waay jaajëf. ñoo ko bokk. grand Babacar di la dalal cependant am na loo si yok a yokk. Bon, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, l'essentiel, c'est exactement ça. E Nos deux roulés, c'est c'est e, limpide, quoi. Donc, c'est uh, c'est très bien dit, très bien expliqué. L'essentiel, c'est ça, au fait. Peut-être, là, que tu mon yok, moi, liberté, le foot, non, euh, euh, euh, no complet bi di di di conférer rek té foog na ni ñëw nga ci moy cette liberté de choisir aussi hmm? lu mel ni ci ci ci ci kaaw fork yeeg yoy tu as la liberté de choisir ban kii ngay suivre et cetera et cetera c'est un peu technique mais liberté la tamit bo xam le fait que nga am ben full note qui na la ko conféré na la quoi sinon tout tout est bien expliqué wax dëgg merci beaucoup pour appréciation bi euh, mais effectivement li nga wax ni c'est très important ben élément bu ma fàtte woon mais mën si ñëw Manam on sait que bitcoin de façon générale quatre acteurs la ñom ñoo koy gérer hein. donc am nga utilisateur on va dire entre guillemets lambda bi moy ñun ñi euh, am nga commerçant yi moy ñi nga xam ni ñoom dañuy nangu jaay ben affaire contre du bitcoin nga am développeurs yi et enfin nga am mineurs yi eh, grand Babacar que wax ça fait référence à imaginons développeurs yi bëgg a def ay mise à jour le code bitcoin bi donc def lu wax fork manam ben séparation complète de code source bi par rapport à vision de base bi loolu yow am nga possibilité nga man je vais faire la mise à jour donc par exemple dem si un genre crypto-monnaie parce que gars yi suñ ko fait la plupart du temps dañuy changer du bitcoin def ko lenen manam def ko bitcoin cash wala bitcoin SV wala bitcoin gold wala leneen ak leneen wala nga ni man damay des ak bitcoin dëgg bi donc loolu mooy pouvoir bi nga xam ne tamit am na bitcoin da koy may nit yi beneen liberté boo xam ne tamit waxuma ko woon mooy tey nit ku jënd or par exemple amul possibilité génnee or boobu dëkk bi foo demee aéroport dañ koy saisir foo ko jéem a dugal tamit dinañ ko saisir or amul droit génn dëkk bi nga xam ne foofu ko ko jëndee donc ñëpp ñi nga xam par exemple dañuy def seen ci or pour mën a protéger seen bopp si inflation ba yeneen ak yeneen duñ ko mën a génnee su fekkoon dañu waroon génn dëkk bi comme ay ñoom ak afghanistan ak pakistan li leen daloon temps yee passé alors que bitcoin il te suffirait juste yow nga def ko si sa benn soit sa benn pc mais su fekkee pc bi dafa rëy nga def ko si sa benn disque dur nga def ko sa benn clé USB nga def ko sa beneen lu ñu woowee hardware wallet nga xam ni c'est un peu comme des calculatrices nga génn ak moom ni vu ni connu donc loolu beneen forme de liberté la effectivement euh, Maguette Diop ñu ngi lay nuyu. Euh, waaw nuru maa ngi lay fay na ngeen def. ñu ngi si jàmm sant yàlla. alhamdulilah. waaw xanaa di rafetlu. Euh, intervention bi nga def comme ni ko euh, Babacar waxee c'est très bien expliqué. pardon nag mais dégguñu la bu baax mën nga gën a jege micro bi tuuti rek. allo allo est-ce que yaa ngi may dégg yaa may dégg. waaw waaw tane na merci. voilà donc je m'excuse donc dama ne di rafetlu rek euh, intervention bi nga def explication yi nga def leer trop macha allah. Euh, bon man dama amoon juste fi nga daanale foofu laa doon am ay interrogation tey jii lan moo war a tax man may def benn në. alors que par exemple comme ni ko avec Ben clé Ledger on conserver tay crypto-monnaie en général et aussi aujourd'hui est-ce que bi est-ce que c'est adapté à notre environnement au Sénégal environnement bi c'est deux choses environnement technologique parce que est-ce que tu ji on a assez de on a on a est-ce que tu nga assez de stockage pour stocker toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 2009 c'est une question et deuxième chose comme nous, on sait que euh, suñu environnement est côté euh, énergie est-ce que aussi benn ne supporter ay coupure d'électricité sachant que c'est quelque chose qui nous arrive donc un aujourd'hui est-ce que c'est quelqu'un c'est à la portée de de tout un chacun si question bi am amna solo euh, par rapport ak Ledger wala ay yenen solution comme Trésor il faut faire attention parce que ce sont des entreprises qui font ça Les entreprises yo xamni par exemple soo c'est sa ben Ledger tu es obligé de jaar ci Ledger soko qu'on connecté tu vois maanaam entreprise bi dafa am une solution un software bo xamni mom moy jouer intermédiaire entre yow et bitcoin donc qu'est-ce qui arrive su fekkee dañoo attaqué les je sais pas gis nga temps yee passé les joueurs dañ leen attaqué woon ñu sàcc en fait information wu nit yi nga xam ni yëpp dañoo jëndoon les <laughs> joueurs tu vois donc imagine benn attaquant yor information boobu noonu en sachant que ñi yor les joueurs yi d'habitude ils ont des sommes un peu importantes loolu moo tax justement ñuy investir si les joueurs donc attaquant bu xam loolu noonu mën na ñëw te information yi may wax moy tour yek yoy adresse nit yi parce que foofu lañ leen di livrer seen ledger ak yenen ak yenen donc quand am information yoy non ba pare nga dem nga xam ni ledger bi ni par exemple adresse yi ni lañ générer nga dem vérifier adresse nit ki mën nga xam à peu près nit ku nek fu mu dëkk ñaata la am donc ça c'est un danger te là on le voit on l'a on a eu la preuve mën nga dem nga def ay recherche donc alors que soo amoon sa ben ful noonu ben à part yow kenn xamul ne am nga full node il faut après bon mën nga nëbb sa adresse IP ak yeneen ak yeneen mais loolu ay détails techniques la mais si yoon à part yow kenn xamul ni am nga full node maanaam ça c'est une anonymité vraiment à 90% après il faut nga def benn travail à côté pour gën a yokk euh, waa di sécurité bi et anonymité bi deux environnement Sénégal environnement technique oui et non euh, je pense qu'il suffit juste ni que après je sais que benn si frein yi gën a mag mooy que documentation bi li si en anglais la te ñun on est un pays francophone ñu bëri ils sont pas à l'aise avec anglais bi donc loolu c'est vraiment un frein parce que man lu ma leer ba leer mooy que documentation bi nii su nekkoon en français ce serait beaucoup plus facile pour les gens deux consommation électrique bi en fait ce PC rek ngay yor mu yor ben waa di ben logiciel bo xam day tourner c'est un peu comme nga tal ben Netflix sa téléphone euh, sa PC ça. désolé wala une application bo xam ni fay consommer un peu c'est tout hein parce que am full node bokul ak miner su fekkee on parle de minage là la consommation électrique est un peu assez conséquente su courant coupé euh, gis nga so amé full node par exemple chaque fois ce fait da ko bàyyi chaque fois day synchroniser Madame, partout dans le monde su fait nit a ngi yónnee di recevoir bitcoin yow da nga gis imaginons nga koy gis ba heure bi ni courant coupé courant ñeu suba courant bi su ñëwee suba ba nga relancer nœud bi ba mu connecté au internet li muy def moy day dem laaj yeneen nœud yi nga xamni mom il est connecté à ñom lam mo xew depuis dem bi courant coupé ok am transaction yu bees jox len ma et non lay demain. donc tout le temps il y a une mise à jour perpétuelle donc lol quoi mais grosso modo man je vois pas trop de freins à part la et en termes d'espace effectivement toute ma monde question questions. exactement lol là, <laughs> ça fait moins de 1000 gigas. oui c'est actuellement c'est. très moins de gigas. oui actuellement blockchain ou bitcoin c'est environ 400, 450 quatre cent quatre léegi lolou su fekké yow da nga décider am full node manam récupérer transaction depuis 2009 après il y a d'autres solutions euh niveau lu ñuy les prunet node tu vas récupérer un dixième de 400 gigas non donc ça va te revenir à 40 gigas manam si blockchain de bitcoin bi développeur dañ fa def ay points de contrôle si yenn bloqué. yi donc yow tu as la possibilité télécharger juste dernière transaction yi ba dernier point de contrôle bobu non. donc mën nga remonter par exemple toutes les transactions depuis 2017 par exemple tu vois après il yi si des yëpp avant 2017 yow doo ko am si sont, si mais façon tant que vous créez benn blockchain explorer wala benn application yow ça t'intéresse pas Ce fait que c'est pour yow seulement mën nga utiliser technique boobu bu ñuy Pruned donc P R U N E D Pruned Node am nga yeneen type de nœud sànq wax naa si ma ni sax application portefeuille yu bëri si la ñuy basé wu mooy li ñuy woowee SPV simple payment verification nœud yooyu euh, duñ def leneen lu dul toog xaar ñooñu dañuy relier seen bopp si benn full node suñ ko soxlaa am nga leneen nœud yoo xam ni on les appelle les nœuds block only maanaam ñooñu transaction yi nga xam ni confirmé confirmé wuñ leen intéressé wu leen

je sais pas ndax nit am nañ question wala lo leen si bëgg yokk. bon man amoon naa peut juste lu ma ci yokk moy pourquoi euh, sujet bi ñu limité ko juste au au bitcoin parce que tay ji je pense que euh, euh, cryptosphère bi manam lepp luy yëngatu ci affaire crypto-monnaie weesu na bitcoin tay ji ya xawma combien de bon combien de milliers de de crypto monnaie, crypto-monnaies yi nekk ci aduna bi tay ji bëri bitcoin mooy benn bi am na beneen ethereum am na card ada de cardano am na yeneen yeneen yeneen donc est-ce que je jii doon na baax nga limité ko juste ci bitcoin wala c'est juste à des fins pédagogiques moo tax nga limité ko ci bitcoin en se disant que peut-être boo comprendre les bitcoin di doxee di nga comprendre ñi ñeneen yi voilà laal nga c'est exactement ça mm exactement fait voilà on dit la même chose en fait en général de façon générale mm, toute définition et tout ce qui tourne autour de la blockchain après suñu avons bitcoin buñ ko étaler rek am compréhension solide sur tout le reste parce qu'il y a rien de différent techniquement au fait approché à philosophie rek changer de temps en temps oui ma yokk si ni que c'est un parti pris maanaam comme ni nga waxee crypto monnaie yi na trop eh, pour joxe une information de qualité et pertinente tu peux pas juste mettre crypto monnaie Sénégal maanaam kon suba nit mën na ñëw ne la waa mais Tezos dégg naa def nañ mise à jour bi bi bi bi fekk yow suivre Tezos wala ñu ñëw ñu ne la Ethereum apparemment def nañ lii di fekk suivre ko donc déjà suivre Bitcoin les plus riches c'est extrêmement difficile alors suivre toutes les crypto-monnaies ce serait quasi impossible donc c'est un parti pris en sachant que euh, en fait quand on dit Bitcoin crypto-monnaie ce ko maanaam Madame man maa j'ai mon initiative créer Bitcoin Sénégal il y a un mois et demi mais comme le grand barbecue a expliqué la dernière fois communauté Bitcoin ça existe depuis 2016 moom suis sax initié à l'époque mais pour pourtant man dama jékki-jékki ñëw ma ni bon bëgg nañ am benn bëgg naa quand benn room boo xam ni on peut discuter de bitcoin en wolof ma créé ko sama bopp maanaam yow tamit mën nga ñëw suba nga ni man damay créer Ethereum Sénégal amul kenn ku ko moom ku nekk mën nga ñëw créer sa affaire bopp suba nit mën na ñëw créer benn page Facebook bitcoin Sénégal du ma dem naan ko man maa moom bitcoin Sénégal kenn moomu ko tu donc c'est ça l'idée bitcoin déjà mooy base bi. su fekkee nit dafa bëgg a xam lépp lu jëm ci crypto-monnaie de façon générale wala technologie blockchain entre guillemets de façon générale mën na tàmbalee ci bitcoin information comme ni nga grand Babacar waxee information yi fi fiy joxe yëpp dina jëriñ nit ki su demee xool yeneen crypto-monnaie yi mais dina jëriñ nit ki aussi mu juger pertinence ak qualité wu yeneen crypto-monnaie yi bitcoin mooy première bi dox mais pas premier bi ñu mës a créer avant comme ni ma leen ko waxee woon bit Gold, e eGold B-Money ak yeneen ak mais bi moy première bi dox lan motax première bi et ça fait plus de 12 ans maintenant que je fi ba c'est que y a beaucoup de raisons donc raisons yoy lañuy jëm expliquer et qui font que Bitcoin est différent des autres mais voilà quoi donc grosso modo tu as la réponse à ta question j'espère je sais pas na grand Maguette mu ngi déglu oui mangi ngi déglu maa ngi déglu bu c'est excellente euh, bon bonne réponse hein. je pense que dama bëggoon rek mu me gëna gën l'air, leer sama bon, parce que comme man il y ko carrément, en fait wax ngeen ngeen limité wu seulement au bitcoin mais bon euh, je pense que pour que euh, je vais pas dire que pour jëriñu ci mais je pense que pour que ubbi aussi les champs de tout tous les possibles euh, wax nit ñi tamit ni am na yeneen yu dul bitcoin yo xamni tay tey ji doon na doon na aussi pour xam-xam pour que nit ñi xam ko parce que je pense que peut-être je je vais un peu plus dama xaw a xamu ni nga ko dama je vais plus vite que la musique mais xam naa loolu di ngeen ci egsi bu soobee yàlla en tout cas maa ngi rafetlu bu baax initiative bi c'est une très belle initiative d'essayer de démocratiser le d'essayer de démocratiser le bitcoin donc c'est les autres crypto-monnaies maa ngi la ci gërëm bu baax merci. merci grand Maguette merci. voilà. Euh, même même même Maguette li ma koy dolé rek moy juste que ni euh, su ce nii ci rum bii hmm, moy comme li Nourou expliquer rek mais dama lay wax ni que souvent on parle des autres hein. par exemple man so jëlee sama cas je parle beaucoup de Ethereum ci ci ci ci que ça soit sur Twitter wala wala Facebook so demee di nga gis ni que hmm, par exemple toute cette semaine là wala semaine passée ba légui Mangi mangi indi ay point yu point sur le concerné les DeFi les finance décentralisée sur Ethereum di définir yenn yenn yenn point yi nga ngay retrouver de façon générale ci la plateforme Ethereum à tout ce qui est finance décentralisée au fait room c'est comme nous nous Nour expliqué c'est fait exprès pour nous, mais ça n'empêche par d'autres canaux on parle de ku nekk yaa ngi développer ci sujet yi la intéressé lim la wax rek c'est que c'est ça au fait so amé yenen yu la intéressé comme les de cardinaux et autres là am nga cette liberté là aussi de développer une plateforme yo ko mën yo ko mën tafé mu nek ta part ci ci ci liggéey bi ñu def ñun fait et ce serait intéressant au fait ku nek xol côté bi nga intéressé partager avec le maximum de gens pousser les gens à la recherche ñu dem ku côté de ton côté pour comprendre hmm? après nga partager avec les autres partager quoi. vraiment j'invite à tout le monde de de j'invite tout le monde à faire la même chose en fait exactement et ça fait référence à la philosophie madame. décentralisation euh, il est important en fait mu am ñu bëri ñu def euh, parce que soo leen xoolee boo xool man dama tàmbali woon ba ma commencé intéressé wu sujet bi documentation yi mais dama doon gis le même sujet par exemple sujet wu tey bi en full note mais da nga siy gis dix articles différents yoo xam ne le fond c'est la même chose mais forme bi ça diffère et loolu qu'est-ce que ça permettait ça permettait de séparer le vrai du faux et donc ça permis aussi de d'identifier vraiment l'information pertinente bi lay jëriñ yow parce que style yi bokkul a na nit xam dina comprendre via ay explication très détaillée très technique très poussée amna kenn il lui suffit juste d'une vidéo de 5 minutes etc. donc pour que nit yëpp mën si gis sen il faut que nit ci wax tamit différent il faut que termes utiliser différent il faut que plateforme yi utiliser utiliser différent donc, am a ay groupe telegram grand Babacar moom on va dire am réseau ak donc c'est ça quoi il faut que vous décentraliser grosso modo euh, maa ngi jéem a invité mais on dirait que vous wax wala dañoo wax je sais pas. en euh, fait on ngeen ñu ah. on est entre frères et sœurs donc euh, xam même moi je ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois, sous mon, mon invité, j'essaie de partager, j'essaie de, parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise que de vraie rencontre mhm. que vous ne nit à nit ni d'ailleurs ci côté de la gën a le travail mhm. que je fais que que discuter en ligne avec nit ni. donc mon ngeen nous échanger. c'est ça donc moi, je vais les invité gars <laughs> une dernière fois. Mais effectivement, moi, mon Hamnani, dans quelques semaines, Inch'Allah, je serai au Sénégal pour de bon. Euh, et à partir de là, bah, grand bah, que dinañ connecté, Inch'Allah, pour mën a def affaire yi nii physiquement aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. maa ngi def ay vidéo tamit pour mën a partager xam-xam bi. genre wan nit yi nan la ñuy installer waaw justement pour répondre à ta question grand Idrissa euh, mën nga dem chaîne YouTube bu tudd yeewu jot na donc Yo, tu es abonné je pense tant il passe une vidéo euh, bulle Bitcoin Core carrément comment est-ce que la personne peut faire quoi donc genre affaire yi est Exact, super vidéo, hein, j'ai vu. Voilà, donc il faut continuer Merci, c'est mon Alors, macha allah macha allah effectivement Nourou euh, la dernière euh, fois bi may dugg si kii bi bi nga joxe information yi par rapport ak euh, chaîne YouTube après dugg naa au début xaw ma woon ni yow la mais bi ma déggee baat bi je me suis dit ah sama waa ji da doon laaxatu quoi léegi léegi feeñ <laughs> donc mooy loolu quoi sinon sëñ Babacar. Euh, dégg naa juste léegi nga ne am na ay rencontre yooyu kii euh, rencontre en physique donc information yooyu bu mënoon jàll au moins euh, pour ku am temps comme par exemple man daf may intéressé lépp luy crypto-monnaie lépp luy blockchain donc bu ma xamee ni am na événement bu gars di organiser c'est en présentiel pourquoi pas je suis je intéressé information bi daal moom moment Ok, souvent on les publie sur, sur, sur Twitter, LinkedIn, at Facebook. Hein. Donc, euh, sur LinkedIn, c'est loo même vous suivre nous ça par par qui toujours vous retrouver euh, publication et affaire Ou quoi. groupe Telegram dont nous parlait tout à l'heure aussi souvent nous partageons partager affaires quoi.